الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi janoog noonu nu ngi leen di nuyu di leen ziar ñu fas yéene ne indil gi ñu amaloon ci 2 février 2019 Médina Syll di village bu boot ci commune Ndindi Bëggul seen diggante toll ci juróomi kilomètre ñu fàttaliku Serigne Médina Syll moom tafsir Ahmadou Mar Syll Syll ci pàttali nekkoon wëllëreewu Serigne Mamor Anta Sali Serigne Mamor Anta Sali sax moo digle woon ne bu fi bàyyi ko na ko Serigne. Ahmadu Ndumbe Maar mi jullee kooku nag mooy way juru Serigne Mirina Sëll mii ñuy fàttaliku Serigne Mirina Sëll mu ngi sëriñ ma Masamba Xari Sëll mu ngi gane àdduna ci atum 1848 sanc dëkk bu ñuy wax Mirina muy Mirina gi ñu defee màggal gi ci atum 1895 sanc na it beneen dëkk bu ñuy wax Darou Salaam ci diggante 1925 ba 1930 mu doonoon jàngalekat ñu bari génnee ci ay daaraam doon ay kilifa yu mag ku ci mel ni Serigne Moussa Ka Serigne Mahmadan Kasu ak ñeneen mu ngi làqu ci 1er mars atum 1945 boobaak léegi nag ak njabootam di ko fàttaliku ren di màggal gi dajeeg 2 février 2019 bis bi it ñu ci alquran ndax ñun bi aksi agsi fekk nan dongay daara yi ñu koy ñu ko koy mu mu mu mat waaye nag ñu yem ci yi nga xam ne ni yu am solo la ci lañ daal di nag tàbbee ci kër gi nga xam ne kër sëriñ bi di kër Serigne Merina ñu fekk fa Serigne Ousmane Syll mi xalifab Serigne Merina Syll njabootuk Serigne Mor Asta Syll doon ziyaar ñoo doon indi seenub liggéey ci ndigalal xalifa ba Serigne Mor Xari Serigne Gumba Syll yëkkati na fa kàddu ci néegub sëñ euh, Mor Xari ba ne la sëñ Mor Xari bu fekk woon sëñ Merina muy defar euh, kër da cay defum néeg néeg ba lañ la joxoon daaw fukk juróom a ngi nii boole ko ca néeg ba dañoo fas yéene suñu fi sunu borom bàyyee te bàyyi la fi nuy dem ak ñëw at mu ne buñ ko fekkee daañ yëkkati lëf ne defal ca néeba ba néeba egg nga tëj caabi ñu ne nee bii day sëñ Mor Khary moo ko defal sëñ Mbiré ndax dana ko neex lool ndax moo nekkoon jëriñam nangoo liggéey lool te nangul ko léegi bi ma tàggoog sëñ tay ba Njaañ sëñ Dame Sire dafa dafa wax ne ma sëñ Mor daana wax ne su sebee mu jër ab goppam nekk ci tool yi di liggéey tool sëñ Mbiré saa yu gisee illeer bi dafa am aajo di ko dox waaye bu dul loolu leer bi du génn suuf si kon li am da koo jënd askan wi mu bokk ñi ci suutu fan ca la bokk yaakaar naa ne ku wëcc suutu fan nekku ci ci ñi ma xam ñi ma xaw ma xam waaye ñi ma xam ku wëcc suutu nekku ci kon liggéeyal na ku mat a liggéeyal waaye jël na ngërëm waaye ngërëm loola nag lépp rogalaat na ci sët yi ak yow mii tey nga xam ne yaay sëñ mbir nga dañuy ñaan yàgg la fee fekk lool yal na yàlla neexal ay gi te yàggal ko lool lool yàlla boo ci jéem dara loo tële lu xalifab sëñ mi rek na masana def yàlla nga def lu ko ci barke borom Touba ci barke sëñ taxaw mi nga xam ne mooy sëriñ tubaa tey sant nañu la gërëm lañu la ñu ngi ñaan sa taxawaay yàgg suñ ko ne yii ñu àndal tam nga xam ne ni tey ñun ñëpp ànd te nekk benn buum fas yéene rek di digal ndigal di defe ndigal di bàyyi tere sëñ Mor bi mu ne waxee ne lii laa bëgg it nu taxaw ca taxawaay boo xam ne nii bég na lool mi ngi lay nuyu nee na moom li ko doon gënal sax mooy ñëw ba sukk fi si kanam siyaare la mane ne comme tey a bi dafa xat da ngay bàyyi beneen yoon dinaa fi ñëw ñëw boo xam ne dinaa ànd ak moom ba ca eh, ànd yow ba ca moom nga siyaar ko waaye mu ngi lay siyaare et eh, li cay dolli ko mooy daanaka eh, liñ ci waroon a wax bari na waaye bis bi xat na. comme daal liñ ko waxee ñetti maam yooyu daal te mooy maam Modou Asta ak maam Mor Asta ak maam Bala Asta ñu ngi jot li suñu nuyoo ak suñu siyaar di fedd litim taxawaay bu rafet bi nga xam ne maam itim seqoon nañ ko. ak sëñ Mirina ñaan yàlla mu defal ñu kilo lu kawe si njort ñu koy wax rek mbokk dafa am solo lool yëmut ak dara ndax dangay gis ci alxuraan ne yonente bi sax bi ko yàlla yónni li mu ko njëkk a wax mooy wa ansir ashiratakal aqrabina woote bi sax dana ko leen ci sa ay mbokk te bu jafe-jafe amee tim xam nañ ne mbokk rek mooy taxaw yonent bi mu amee ay jafe-jafe sax ci hadisul ifk boobu ay mbokkam la laaj lan mooy xalaat bi demee tim ba wàcc ab liggéey tim ba ñenn bëggee taxaw ay mbokkam ñoo taxaw ne ñoom ñoo koy waajal ñoo koy defal lépp mbokk googu nga xam ne amoon na ci ansaar ak muhaajiroon bañ mel ne benn ah mbokk tay bëgg itam loolu lañ fi gis ñaan yàlla mu dëgëral ko sàmmal ñu ko ba liñ ci yéene lépp yàlla mottal ñu ko yàlla bàyyi fi ñu kilifa yi wéral leen ñun daal dañuy sagu ci tay ba bu baax a baax sant dañ yàlla bu baax a baax biñ ci bokkee di ñaan yàlla mu defal ñu ci lu kawe suñ jort di sant bu baax ki ñu fekk di sëñ Mbàkke Madina mi nga xam ne bari na ci loo xam ni ñun ci mbokk gi moo ñu ko xamal bu baax a baax di sant bu baax soxna si di ñaan yàlla mu defal ñu taw tawféex ak taysiir rek di sant bu baax euh, waa Touba TV ñoom tim ci seen taxawaay bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy taxaw ci lépp tàmmalee ko ci sëñ Jibril Ndaw mi nga xam ne suñu xarit la euh, di suñu lépp di suñu mbokkum daara kon ñoo ngi sant ñëpp di sant bu baax sëriñ màkk yu fay bàyyi ko ci seen kilifa di sëñ Mor Xari Sill ak njabootu ko sëñ Modou Asta sëñ Mor Asta ak sëñ Bal Asta sëriñ Ousmane di sëñ Mirina nee na mi ngi leen di nuyu di leen delloo ab nuyoo di leen siyaare bu baax a baax di nee na li ngeen wax lépp xam na ko ndax lu ci bari fekk na ko kon nee na mi ngi sant yàlla bu baax bi yàlla sunu borom dogalee jotaay bii ngeen defee ko nii di ñaanal itam sunu euh, mbokam ma di bay njaga mi nga xamne ne bepp ci mom la tàmbalee ñaan yalla sunu borom doli ko ay njëgal ak yermale ndax yaakar na ne euh, señ bi nee jotaay bi bepp ci mom la tàmbalee mu ko dox def doxin wu rafet nee kon mi ngi ko ñaanal yalla suñu borom gën gën ko teub njëgal ak yermale di len sante bu baax nak di xamne kóllëre ga doxoon diggante sëñ Mirina ak sëñ Mor Asta yaakaar naa ne dañ ko yokk waaye wàññu leen ci dara loolu nee na xam na ko bu baax a baax a baax ne na jotaay bii day bu ko sëñ Mor Asta ak sëñ Mirina gisee danañ ci bég lool ndax lii rek lañ bëggoon ne ko sëñ Mor Asta sëñ Mor Taïf waxee eh, muhaajirun ak ansar nooñu nooñu ñu daan doxee askanu tey ba dañ daan doxee doxin woowu àggoon nañ ci di ma daan def ne. bu diw wàccee liggéey fii ci Mirina ka féete Taïba Njaañ moo koy dond mooy solal waa këram bu dee Taïba Xay ka féete fële moo koy def loolu lépp ak euh, jaxase ak bokk la ku ne xam ne Taïba Xay ak Mirina ñoo bokk menn maam Taïba Njaañ ak Taïba Kalom bokk menn maam waaye dañ daan def bu dee Mirina Taïba Njaañ koy euh, solal loolu lépp na kon ak gën a jaxase ak bokk la sëñ Mor Asta nag ak njaboot gi ni ñu meloon ak sëñ Mirina ni ko Baye Massir mi waxee rek tënk na lépp yàlla leen bon ak bokk déggal leen mu nekkoon nawleem waaye mu mu déggalan ko lool liggéeyal ko ba mu gërëm ko ba tax na lépp lu mas a dogu ci barke bi sëñ Birima yàlla def na lool loolu nag dogu ak liggéey moo ko def loolu sax dafay wane nekk eh, sëñ Birima doyloo gum ko doyloo woon àggoon na ci kenn ci njabootam di jëmm ji nga xam ne moom la sëñ bi wutu di maam sëñ Touré bi mu ganee jamono dafa sëñ Mor sëñ Mor bu ñëw mu ne ko jëmbu ji de li mu bëgg ci moom yaa ma ci doy te boo ko ñaan yàlla dina ko def sëñ mu asa daal di ko jël leewu ko daal di ne ko dana gudd fan dana am barke barke bi sëñ Mbirina rek la ko wax dana gudd fan dana am barke yaakaar naa ne maam sëñ Touré ku ko sutu fan ci njabootu sëñ Mbirina gisee su ko lim toog xilaafa sëñ Mbirina itam ku ne gis na ko kon loolu day gën a dëggal seede li nga waxoon ne lépp lu mas a wax ci barke bi sëñ Mbirina yàlla dina def loolu kon sëriñ bi nee na mu ngi ñaan jotaay bii yàlla na sax yàlla na yàlla suñu borom jàppale leen te gën leen a dëgëral nee na xolam sedd na bég na ci njaboot gi xam na ne eh, li nekk ci xolam ci ak eh, tontu tuuti na loota na ci feesal ko ci aw làmmiñam waaye mbégte la fa mbégte di àgg àgg na fa ci biir njaboot gi nee na mi ngi leen di ñaanal bu baax a baax di ñaan jotaay bi yàlla na yàgg lépp lu ci waaye def yàlla na nga ko gën a man ci baax ko Serigne moo moom itam ñaanal ko bu baax ndax tax doxalin sëñ bi rek la fi nekkee na sëñ bi daan def di bennale askan wi di dox di gi di def lépp muy benn loolu ci lay xëy ci lay gont ku mel noonu nag kon mat naa ñaanal ñëpp ñu baasi ñaanal ko mu yàgg fi lool ba li mu yéene ci lislaam ji yéene ko ci askan wi yéene ko ci bokk gi mu def ko lu kawe njortam sëriñ bi nee na sant na bu baax a baax wala tuxni anni fak bi kawni laim wala tuxri wala tuxsiyanni xinima kan wala tuxni anni bi kawni lahim ولا تخسيني خني مهلكا ولا تهدئني بكون لهين biñ jógee foofu nag ci lañ daal di ñëw kër sëriñ Amdi Sill xalifab sëriñ Dame Faty sëriñ Dame Faty mi njëkk a wuutu sëriñ Mirna Sill diggante 1945 ba 1947. وسلم سلاما عليه يدوم بسم الله bi nu jógee foofu nag ñu ngi ñu ngi fii ci kër sëriñ Taïba Xaye moom sëriñ Mérina di rakk ci xalifa bi ñu fekk fa ab jarbaatam sëriñ Mamor Mbakke moom sëriñ Abdourahman moom borom daaru بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم lañ daal dugg seen ak ci kër sëriñ sëriñ mirina ñu fekk fa ay sëtam sëriñ abbas mom sëriñ bas anta ak sëriñ abdou samad ak sëriñ abdul quddus mom sëriñ moodu kara ak sëriñ muhammad mom sëriñ Bass Abdou Khoudous waaw bi nu fa jógee nag mbokk yi ñu daal di dem kër sëriñ Mahamadan Sill xalifa sëriñ Modou Seynabou Sill waaye moom sëriñ Mahamadan mii nag doon jëwriñu kër gi doon loxol ndeyjooru xalifa bi di taxaw liggéey yi nga xam ne nii moom la sëriñ moom la xalifa bi di taxaw ci ci ci kër gi lépp ba ci barab beeg kër geeg yëpp rek ci taxaw taxawaay bu am solo. ban fa jógee nañ dem kër Serigne Touré fekk fa ab xalifaam Serigne Mbaye Sill ci foofu lañ fa jóge daal tàbbi kër sëriñ Hassan Sill mooy xalifab Serigne Mayib Sill ñu fekk fa ay rakkam sëriñ am di Sill ak Serigne Xaadim Sill كل من المصطفى عن كل مصطفى وزغ بالخلق يا من جل أمنا يا مالك في ñu nekk nag mooy kër Serigne Bàcc Syll xalifab Serigne Makhtar Penda ارحم جميع ختاما لفوز يري سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سكوت هموري وصلب العظيم لرب خبير غفور رحيم سكوت هموري وصلب العظيم كنا nak mbokk yi foofu lañ daal daal di ñëwee nag tàbbi nag Pape Anne mi nga xam ne mooy sous préfet bu Ndindi ak Cheikh maire bu Ndindi Dame Diop nekk responsable APR ci teewaayu it chef du village su dëkk bi Serigne Mahamadan Sill ba ko magi tay ba yéegee yàgg na Tafsir Mamadou Ndoumbé Mar bu masaa ñëw ànd ak waajuram ñëw fii tay ba Dakar bu demee fekki ñim nattangoonteel ci at mbaa ci àlluwa ba jóge fa du nungu kenn teg ko loxo lëng ko rawatina nag sëñ Mérina moom wax nañu mas naa ànd ak sëñ Mérina sëñ Mérina bëgg ko lool ndax teel gee mën alxuraan moom sëriñ Touba teg ko loxo waaye sëñ mamorante mam saf si ma doy baa xamatut lu muy def ci jataay bi dañu ñokket dajeeg sëñ Mérina nekk ci loxo puus ko ba nee ni ko bu ko lëngati mu ne ko ah kii di sama rakk mu ne ko du rakk ju mu ne ko nu ma koy def mu ne ko dee ko yoxal di ko jiital di ko xool lu mu def nga xam ni noonu la te booba mun munta tudd ni ko kii mooy lii te xam na kii booba mooy lii ndax wax ko jot jotagutoon kon kooka waajuram xam na sëñ Bàmba moo waral sëñ na ba muy jox sëñ Tuubaa boppam léppam la ko jox bàyyiwul dara ba muy jébbal ci wom da ko ni wut alal ndax réew ma koo seen mu jiital la mu jiital la ci maa ko moom waaye dàgga ya dàgga joo dem sàq ya fa ëpp samay sàq wut si wu ma mbooloo sama tool juróom-ñett fukki góor a nga fay tobbi juróom-ñett fukk nga topp ci ñoom di suul balaa jant soo ñu suul fukki ma tey kemb wut si wu ma xam-xam lu ma mat a xam xam naa ko sama kër baay ndax nit dikkagul laaj ma la mu ma xamul sëñ Bam sëñ Bamba ne ko seex euh, euh, sëñ Masamba si looy wut nag mu ne ko bëgg àgg yi ci yàlla rek te yow yaay waa ji àggalee sëñ Bamba téye ca loxoom ya mu daal di àgg ci boromam mboom noppi jom na ko demal toog ne àgg na bu yëg demal toog ne mu daal di commencé ko joxi murit nag ak ak ak i jaayante lim doon baax baax amutoon kenn ku jébbaluutoon ci moom ku jébbalool ci moom dañ doon jàng si rek ku man ñibbi sa kër baay waaye nag ba ko sëñ Tuubaa joxoñee ba mu ñibbisee ay laxas ay tërbiya la sëriñ bi doon wut ci Tayba buntu bi bukk na de yaakaar naa ne nii li ci ëpp li ci ëpp mi ngi dox mi ngi am ndax àdduna jeexagut nag te ma ne lim bu doon wut lépp am na ko kon buntu bi ubbi ko ne mi ngi dox yàlla na dox nag ca kanam ca kanam rek barke Sëriñ Tuba maam maamam waajuram tafsir Madu Ndumbe Maar Ahmadu Ndumbe Maar xam-xam la wutoon Saalum muy dem Saalum lu war a xam-xam na ko dafa am téere bu mu doon jàngi dégg ni am na bambu mu dem daje fa ak tafsir Momar Anta Sali ñoom ñaar foofu lañu wëlërantee kenn ku nek nak dem ba yegni ni sa borom li nga yor ci xam-xam doyna sekk adun ñu am ay relation di ko dund di dox am na ñu wax ni bu señ Momar Sëli massa ñew bu nawet bi wacce bam farmangu day and ak njabootam ñëw Taïba dakar ci tafsir Modou Memar def fa ñetti wer ñi li ñuy wax mu ñu jangat jàngaat liñ di wëlbati ko nak di jangal nak ñi kenn ku ci nek matière ba nga fannu nga di ko jàngal nag ñi fi neen te amaguñu woon boobu ndax booba téere yombul da nga daan ko gis ko laxas ngir benn téere topp àll bi di ko wëri ba dee ci àll bi loolu moo tax sëñ Tuubaa jéngu defar téere yi ñu war a soxla yépp mu jéngu liggéey liggéey boobu moom la ko yàlla fayee jëfam ji bépp téere boo xamante ni sëñ bi def na ko ak yu tée mag ñi xamutoon te sëñ Tuubaa li ko yàlla defal moom mooy téere ba nga xam ni dañuy wax da koy jàng rek ba miin ko xam masala mi sëñ Tuubaa da ko daan mokkal moom ba tax na téere yëpp bu ñu leen lakkat mu defaraat téere yëpp mu bind téere bi yu mag yi nag yi nga xamante ni boo masa laxas da ngay dem ci dëkk sanga ni man de lax dar yu laa bëgg a jàng damaa bëgg a dégg sama diine borom kër gi borom daara ji ni la boo ma nekkat àllar ba ñu ne nga xëy sama tool dimanche ju la nga xëy sama tool da ngay defar sa néega boppi dëkk ci nag lekk nag yoru lu ma la ko nga ne waa indaali naa lu ma mën a lekk de bu ma ko mënee joxee nag ci kër gi ñu ñu di ma ñu di ma tibbal fa tabaarakallaa dinaa man loo mu la ah, joxeel ci biir nga joxe nag bokk ci yëf yi loo mos nag baax na ndax ndongo bu jàng moom ni ko sëñ lekk ba rek moom doo ko def moom ba bari xam-xam lool ku mais sama kalaas gi loolu nu xañam xam-xam ndax suñu kër daal soriwutoon bu nee nguni nguni daw dem ci kër gi lekk ba rek di waaye kun kaati man di luri wala bu saatana xas danu ba taxlil jiiliya mu taxallimu la taksiri sawafakon mutajallidan atta taso nanasu annakal munhimu fal hilmu la yo taliman yax satawa bal rabbuna habdan sawoor yulimu ñiy jàngale ko sëñ bi tënkal ba bayit ya jeex di juróom-ñetti bayit nga xam boo ko déggee doo gerew di sànni xeer doo cëpputu sa muse doo ko joxoñ di ko wax loo ko war wax doo bàyyi ba mu la nga di ko mébir te yooyu yëpp gis naa ko ci classe parce que jànguñu kon kaati man muy bay yu gàtt yoo xam nañ ko war a def ci école yi di ko jàngal ndaw ñi bañ dégg ko ba xam ne xam-xam mooy njariñ ndax xam-xam loo xamut lu nekk ki ko xam boo àggee ci moom bu ko neexee ngelaab la wàcc sa kaw doo ci mën dara ndax moo ko xam ne xamoo sëñ bi loolu la doon xeexal waaye fekk fi nag daara yu mag yi penc yu mag yi nga xam ne loolu lañ doon litteel li jamono doon xat xat xat xat ak li mu doon métti métti ñuy góorgóorlu ku génne fi ñoom rek di borom xam-xam bu qualifié ci anam yëpp mu ku mel ni sëñ Mérina def dëkk bii nag mu mel ni université faculté bu ne ne fi tëgg yaa ngi fi ràbb yaa ngi fi uude yaa fi naar yi daal cuub sax ñu ngi fi ak saraxul yi daa ñëw njànnante ndax lu mu ci jublu xeet woo mën a bokk mbaa mécc euh, askan woo mën a doon soo ñëwee boo jàngee alxuraan xam-xam ba noppi gis gis foo jàngee mécc ñibbi sa kër baay ndax xam-xam nak limi bax bax métier koy couvrir. di nuyu Baye Serigne Ousmane Syll di len nuyu ci turu Baye Ousmane Syll khalifa Serigne Mérina Syll eh, wax ji nak du gudd parce que Baye Ousmane dafa am ko yor kàddoom dañu dañu ubbi rek eh, serigne bi neena na mi ngi nuyu mbokk yëpp nuyu talibé yi di nuyu gan ñi nuyu dëkkandoo yi di len sant di len gërëm ci bisam bi mu wote ngeen wuysu ko xolam set na ci guyu mu nuyu mbokk yépp mbokk mbàkke yi ak mbokki tay bay mbokki taalibe yi ak njabootuk sëñ mirina ak taalibe yi ak mbokk yépp bàyyiwut kenn mi ngi nuyu su préfet Alassane an di ko sant di ko gërëm ci taxawayam ci magal gi ndax jamono ji fi dafa xat jamono yi élection yi ci lañ jublu waaye li muy xat-xat defal nañu CLD ci ndindi ñu ko war a teewe teewe ko li ci man lépp def na ko ñu ngi koy sant di ko gërëm ci turu Baye di nuyu honorable député Cheikh Seck di ko sant di ko gërëm ci taxawaayam ci bis bi di nuyu Serigne Dame Diop coordinateur ci Diourbel mu ngi nii teew ànd ak délégation bu mag defe naa tey dama sa ñëw ci dëkk bi kon nag ñu koy dalal jàmm di ko sant di ko gërëm di nuyu monsieur le maire Diourbel Malick yoon yónnee na fi délégation di nuyu mbokk yëpp di leen sant di leen gërëm ci turu Baye Ousmane ñun nag amuñu lu ñuy tawat dañuy sant rek ndax ñu ñu war a tawat ñu ngi nii teew li ñu leen war a tawat xam nañ ko kon nag daanaka jur di ko baamu di ko baamuwaat waxtaane nañ ko te yaakaar naa danañ ko def bu soobee yàlla Cheikh li may wax li may wax nii danañ ci tontu kon nag sëñ bi nee mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal jàmm ñaan màggal gi ñu fekk déwén nag incha allahu rabbi suñ borom nangu lépp luñ fi ñaan mu nekk addiya ñeel sëriñ Massamba Khary Syll ak njabootam gépp ku fi ñëw yàlla suñ borom faj sa aajo defal la jàmm def ci dëkk bi jàmm mi ngi sant njabootam gi tam ndax dëkk bi eh, wax dëgg yàlla fi mu toll nii njaboot xëy ñoo seq mbir na ku ci nekk sopp nga ci xar kanam bu bees ñëpp nga ci jàpp te loolu man mi nekk ci bopp dëkk bi xam naa ci dara tàmbale sëriñ Mahmoudan mi ak ñëpp boo tuddee da ngay juum Matar Sylla yebal na fi délégation ñëw na kon li may wax léegi ci dëkk bi Baye Ousmane nee na njabootam gi ni ñu fonke dëkk bi xolom set na ci guyu mu ngi sant taalibe yëpp di leen gërëm ndax na ngeen daaw lañ tàmbale woon fi barabu sëñ Mirna bi booba ay mool moo fi nekk ak suuf tey barab bi àgg na ba asmaan xolam seet na ci guyu taalibe yeeg mbokk yeeg njaboot gi ñëpp ku ci def saw dërëm wala nga def ci saw ñaq wala nga def ci sa xalaat bu rafet ba asmaan ne sant na la gërëm na la xolam sedd na guyu moom amul ku sëñ Mirna te sëñ Mirna xam ne ne yéen a ngi koy jàpp yéen a ngi koy liggéeyal yéen a ngi koy sagal rawatina taalibe yi lu fi nekk rek ñoo ko fi def kon ñu ngi leen di sant ci turu Baye Ousmane ci turu sëñ Mahmoudane mii moo ko fi nekkal bokk yi yépp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. sëñ nag daf maa yónni ci doomam yi soxnaa misil li muy toog ak mbooleem sëtti sëñ mbir na yi fi nekk yi satoo ci doom yi góor ak yi satoo ci doom yi jigéen sëñ Ousmane neen mi ngi leen sant cant goo xam ne am na tàmbalikaay waaye amul ab yemukaay ndax ne Pastef bi ko bi ngeen ko won ci barab bii ak jàpp gi ngeen ci jàpp kenn ku ne xam ne jamono ji xat na soxla yi bari na kenn ku ne la nga yor fajut say soxla surtout nag noonu jigéen ñi nga xam ne fu mu yi dugg ci lu mënut waaye loolu feeñul ci ci noonu keroog ba nga xamante ne wax nañ ne barab bi dañ koy tabax soxnaay misil li mii mooy ñëw ci man wax ne ma luy sa xalaat ma ne ko luy sa wax xalaat rek ba ma ko wañ def mu ne kon nan jaayante jaayante boobu ñëpp a ca man maase def ko amul kenn koo xam ne kii defoo ci sa dërëm kenn kon la nga mën lépp def nga ko loolu nag neex na sëñ Ousmane neex koo xam ne gii ndax dafa rëy ndax wax dëgg yàlla bu ñu neexoon ñu ne ñun suñu yoon nekku ca ndax noonu du moom ñu ne na suñuy doom dañ ko moom waaye loolu la seetuñu ko dañoo xam ne nun ma war a defar dëkk bi su nuy woy wayjuro ko moom noo ko war a defar kenn waruñu cee jiitu nu góorgóorlu ba nga xam ne la nam lépp dajale suñuy déem suñuy daqaar fàtte ngénte ak céet ya nó nằm liệt của sinh sinh đàn mẹ bị dọc của sinh mà lo sinh mà nè mình kí săn mình nhàn ở ăn ở tụi dọc của nè mình nhàn ở nhịp jam mặc theo rồi arab ya đang sụp sen dong đi gen ya đấy sinh mà nâu lên ndax mom de du sulay dong đi gen mukk dañoy fañ ko tegon dañoo xam ne jigéen de bu ñuy liggéey du mën a liggéey te bi indee gàcc ku am doom jigéen suul ko sëñ sinh moom du def loolu moom du suul ay doom yi jigéen ndax ay doom jigéen full làm này ko faydaal nañ ko jappalé nañ ko yalla nañ bokk gudd fan ak moom te wér ñi ngi nuyu di ziar kilifa yi fi toog yépp di nuyu di ziar monsieur le préfet qui représenté son excellence monsieur le président de la république di nuyu di ziar monsieur l'honorable député maire Cheikh Seck di nuyu aussi di ziar monsieur le haut conseiller Mamoud Omar Ba

ñu fas yéene ko fas kollëre ak yéen pour que saa su ne bu soobee yàlla ñu ñëw taataan ci li nga xam ni moom lañu fi ñaan di ko fi jàng ci alxuraan di ko fi durus ci ay xasay di sant bu baax a baax a baax sëriñ bi di sàkku ñaan ndax biñ may présenté kat dañ leen woon may coordonnateur départemental APR sëriñ bi di la ñaan nga ñaanal borom réew mi du suñu kilifa président Macky te lii ñu jëm yàlla def ci jàmm bu sedd guy bu ñu xëyee le 25 incha allah ñëpp dellu ci liggéey kàddu yi daal kàddu cant la ak kàddu santu sàkku ñaan li ci des dinaa ko bàyyi ak sama mag sama xalifa honorable député Cheikh Seck mu jottali ko mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatulah. nuyu suma sëriñ sama papa suma xarit. sëriñ Ousmane Sill xarit sëriñ Merina Sill bu ma ko nuyoo nuyu naa njaboot gi yëpp parce que njaboot gi yëpp a ngi ci biir monsieur le sous ñu ngi lay nuyu bu baax en tant que représentant de l'État di nuyu jëwriñ yi Baye Ousmane yëpp docteur Khadim commissaire général ñu ngi lay nuyu sëriñ Mouhamadane ñu ngi lay nuyu di nuyu sëñ Mouhamadan aussi chef de village di nuyu sëriñ Assane di nuyu njabootu sëriñ Mérina bi yépp fi nekk ak njabootu ba yi fi nekk yépp ñu ngi leen di nuyu daam sëriñ Dan nee na léegi yaa ngi fi doog a ñëw waaye bu ko bàyyeet xëy na boo fi ñëwul woon doo xam secret bi waaye fii mooy suma wéeruwaay mooy suma làquwaay man bàyyi Ousmane laa cent pour cent ba jeex moom laay déglu moom laay topp lu ma digal ma def lu ma tere ma bàyyi kon mooy suma lépp ku ni Baye Ousmane noog wax njaboot bi kon njaboot gi yëpp ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bés bii màggal gi ba ma fi dalee ñëw yàgg na defe naa ni 96 sëñ Dan bi ma daan jóge Kaolack booba maay chef de service régional di chargé baaru glace yi di ko indi fii loola du tey lépp loo xam ne defuma ko Mérina dama ko amut cey lépp lu ma fi def bu ko keneen nit yëgee yéen a ko ko jottali ndax dama koo def ci ngir taalibe sëñ Mouhamadan bi ma koy siyaare këram léegi daf ma ni wax député bi wala maire wala leneen ma ko waxal dongo bi ndax fii bu fi ñëwee bëgguma doon dara lu dul ab dongo dongo Baye Ousmane rek lépp lu ma sant ma def lu ma tere ma bàyyi ñu jublu nag di nuyu sama rak suma xarit daam jóg di nit ku yàlla baaxe na nit ku rafet am xel nit ku am yar ak ay teggin ma bëgg ngeen ñaanal ko ni ngeen may ñaanale ndax ket man ket ñaanal ngeen ma ba defe naa ni sant naa yàlla kon nag dee leen dolli waaye dee leen ko ci boole kon daam maa ngi rafetlu sa taxawaay di rafetlu sa waxin

buñu doon jël ku fi dess tay jii ci kilifam fi la nek ci Medina ndax serigne Ousmane mi wayjurum bu jigen ak wayjuru juru basirou Basiru wayjuru serigne juru ño bokk ak bay kon lolu lu am importance la kon dekk bi dekk ñaan la dekk wut si sàkku si tiyaaba la dekk jaamu ci yalla la ci lepp lo xamni nit def nako fi do ko reccu parce que du jural lu dul avancement kon sëriñ bi dañoo jëm ci ay élection ci lu matul weer ñu bëgg jàmm rekk am ci réew mi te fii de bu ngeen ñaanee jàmm am jàmm dana am nu am sunu candidat man ak daam mii muy le président makisal nu bëgg ngeen ñaanal ko ca président Macky Sall teral na Mérina ndax sëñ xaadim mii ku ko teral teral nga méri na am na fu ko président teg am na considération bu mu ko jox kon loolu lu am importance ñu bëgg ngeen ñaanal ko élection yi woyof lewat sedd ñu dugg ci ak bisimilahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rahmaani rahibil alamina ba sunu candidat boobu yàlla dénkaat ko réew mi ba li nga xam ni sumb na ko ci ay nal mu mën a yeggale yépp defe naa ni sànq maa ngi koy wax nit ni ko man 4 heures fekk na ma moyen fekk na ma Dakar te 5 heures bu teg tuuti maa ngi fii kooku Ila Touba moo ko war loolu ku ko rafetluwul gisuma looy rafet rafetlu booleeg ay sumb yu bari bari bari sëñ Xaadim ñu ngi waxtaan sànq ci assainissement Touba muy zone boo xam ni li ñu fa def ci assainissement lu am solo la Macky Sall dañuy wax day inauguré waaye suñu su li mu def lépp bu ko doon inauguré at dootul liggéey parce que assainissement boobu nga wax xam naa ci dara parce que administrateur laa ci ONAS conseil d'administration kon fu projet assainissement ne xam naa ko te man xam naa ni fàttewul Mérina gii Mérina problème mu courant Macky Sall réglé na ko

Seigne Mouhamadan li mairie na ndindi OS Mina entreprise biñ ko jox OS Mina pour mu démarrer courant bobu Seigne Dan chef de village li mairie na 485 ndindi département Djourbel. OS Mina xana li veux projet de budget 2009 ministère de l'énergie nga xamni ci assemblée nationale commission de don président moy yoré courant ca dañ ni Mérina ma ni déet dangeen ngeen di bind Mérina ak Daaru Salaam ndax tubaab daa barey toppale ca dama bëgg Mérina dafa ye day Mérina di Daaru kon courant moom jeex na tàkk leneen lu mu di doon it te lu yëg ko danaa ci dox suma tànk daam mi dox ci tànkam préfet dox ci tànkam parce que moo fi nekkal état ba ngeen am ko ndax nun ko dëkk bi yamalewuñu koog benn dëkk ci commune Ndindi parce que ki fi nekk yamalewuñ ko ak kenn mooy sunu wayjur di sunu xarit di sunu sëriñ di sunu lépp kon ñu ngi ñaan yàlla na fi yàlla def jàmm ca màggal gi lépp lu fi wàccee ci ay kaamir ñaan ko fi yàlla na ko yàlla def yàlla def jàmm ci réew mi ba élection yi ñu dugg ñu dugg ci ak jàmm génn ci ak jàmm. bi maa ngi leen di nuyu ci turu président de la république. di tamit nuyuwaale honorable député ak maire Cheikh Seck maanaam maire de la commune de Ndindi le directeur Dame Diop ak ñëpp ñoo xamné ne ñu ngi fi ci base bi yalla baaxe dara mu ñu doon autorité euh, politique autorité religieuse wala coutumière wala mu doon simple nit bu ñëw rek ndax li ñor nako sëñ bi daaw bi ñuy waajal gàmmu bi jotoon nañu jàpp ñe dañuy def CLD yàlla def bés bu ñu jàppoon CLD bi mu dajeek maanaam xalifa bu tedd bi yàlla woo ko mu dellu si yàlla mu doon ñu fomm ko parce loolu jar na fa mu lépp ren yàlla may ñu ba

bu doon aussi xat-xat bi am bi li mu la waxoon daaw ba kii kii la ko laa naroon def tey mais yàlla def aussi ñu ngi waajal élection yi mëntuñ dem fenn euh, sëñ bi ñëpp wax nañ ko ñu ngi jëm ci ay bis suba rek incha allahu rabbi ci minuit lay campagne bi di commencer campagne bi di commencer ba bu doon ñaar fukki at ak benn maanaam ñi ñi daal di wër gox goxaan yi di laaj askan bi seen baat lu ñuy xam rek ni ñu ko waxee léegi ni ko docteur bi waxee ñaan nañu yàlla bu dimanche le vingt cinq ku kenn ku nekk dem doxi su soxla loolu nag li ko waral mooy ñaan ak yee yéen sëriñ yi taalibe yi ñu ngi leen di bàyyi xel di leen déglu kon nag bu ngeen waxee taalibe yi nañu déglu kon ñu ngi leen ñaan ngeen ñaax nit ñi ngeen ñaax taalibe yi wax dëgg yàlla commencé nañu puisque sëñ mi keroog joxe na maanaam autorisation nañu jàng kaamil def nañ ko loolu rek mënoon a doy waaye ñu leen ñaan ngeen dolli ngeen dolli ñaanal réew mi puisque ñu ñëpp benn lañu ñu ñëpp lu ñu bëggal réew mi moom mooy mu jëm fa kanam kon nag waruñu taxaw di saagante ci ci biir campagne bi waruñu taxaw di waxante lu ñaaw ci campagne bi kon bu jeexee bu ñu gisantee dañuy rus sëñ bi bëgguma di téye kàddu gi lu yàgg parce que lu ñu lu wér te rek dëkk mi Sénégal mi soxla na ñaan waaw soxla na ñaan bu baax baax parce que du liggéey ay ay ay ay année benn bés yàq ko def naa du am kon nag ñu leen ñaan tàllal leen loxo ngeen ñaanal réew mi ngeen ñaanal président de la république ngeen ñaanal képp koo xam ne mu ngi yow Sénégal ndax Sénégal jëm kanam dum tey du mu sori xam naa rek lu ñu lu ñu wax rek ñaansurukum laa falaa ghaaliba lakum maanaam yàlla ku mu jàppale rek koo gañ nga incha allahu rabbi kon maa leen di sant leen gërëm di leen ndokkeel di jël nuyoo ak siyaara bi nag teg ko ci loxol sunu kilifa Cheikh Mahmoudan mi nga xam ne tey moo fi teewal xalifa sëriñ Masamba Xari Sill di maam Ousmane ak ay rakkam yépp mu jël nuyoo boobu jàllale nu ko ci kilifa gi ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal teew ci jataay bi yépp di beral nuyoo monsieur le sous-préfet bi fi teewal président de la république ak honorable député Cheikh Seck mi nga xam ne moo fi teewal askan wi moom itam teewal fi assemblée nationale waaye teewal fi commune bi ak euh, mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndaleen teew yépp ci ay autorité <laughs> di amaan mbégte nag bu baax a baax ci jataay bi nga xam ne moo ñu fi baaxoo dajale at mu nekk dañu wax leen ne dajale boo xam ne lislaam daf cee soññee jaare ko làmmiñu yonent bi sallallahu bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran fàttali ko gaa yu baax yi fi jaarante jiitu ko ci ay yonent ci ay saar yu bari seen histoire ak seen jaar-jaar ak liñ liggéeyal islaam liggéeyal ko seenu askan pour mu inspiré wu ci moom moom yonent bi li muy mat mat jël ay leçon ci niñ yore woon seen mission ku la naqussu alayka min anba'i rusul la ko wax maa nu sabbitu bi i fuadaka wa jaaka fii xaati alxaq wa mawida wa dikra lil muminina histoire ñi la jiitu tama di la ko nettali dafa am leçon yu ma bëgg nga jële ko ci pour sa mission bi ma la jox waaye bëggit ñi nga àndal liggéey bi ñoom ñu am ay leçons yuñ ci jëlee ngir xam ne lu baax moom du yomb njalbeenug lu baaxit du yomb dafay metti waaye soo ca saxee te dëggu dëggal ma fekk la ca mu ne ko leçon boobu nag moom laa tax ma di la nettali histoire ñi nga xam ne ñoo la jiitu woon loola mooy cosaanal comme sunu borom subhanahu ci bopam dafa li yonent bi histoire gaay yu bax yi ko jitu won ci ay yonent ngir mu jële ci ay leçon motax yonent bi bi mu ñewé mom itam ba jaar fi mu jaar mom ak ñum andal ci ay sahaba ba liggéey li mu liggéey liggéeyal ko yalla ak diine waye liggéeyal ko askanu diine Islam mak ñu bax ñi itam ñew roy ko don fàttaliku ay jaar jaaram diko ko ci di wax biographie yonent bi ak fi jaar mom ak sa abaya ñoom it ci ay leçon pour sen mission dox kon nak muy itam bu ñewé sun gannaaw itam fay jaadu ci nun nuy fàttaliku góor yalla yi fi jaar demee ni góor yalla gi tëddan fi di sëriñ Massamba Xari fi mu jaar ba taxawal li mu taxawal te dekk bi di ci lenn waye ñimu samp ak ñimu defar ak lim liggéeyal diine liggéeyal ko aw askanam ngir nun ñi nga xam ne noo njabooto ci moom nu tibbe ci loolu jom xam ne ko am maam mu toll noonu mu liggéey liggéey bu toll noonu wër laa nekk ab yaafus waaye taalibe yi nga xam ne ñoo ànd nag sëñ na itam laxasaayu ànd moom ndax nag yàlla kum dara dimbale ku ne fokk mu boole la ak équipe même yonent bi bi ko neree di muy li mu ko wax mooy huwa lasi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina la ko wax bul tiit bul jàq man yàlla maa lay jàppaleel sama bopp waaye duma ci yem waaye dama lay booleek ak équipe bu la jàppale bu ko ne woon man maa lay jàppale rek mu doy waaye la nécessité d'œuvrer en équipe loolu la koy wane mooy fokk nag ko mana don, don donte ab yonenti nga mun la dem yow kep fokk nga am équipe bu la yalla naree dimbalé lolou motax ku yalla naree dimbalé équipe la lay bolal motax tax seexal xadim wax ci uqane wa wa hiya ikhwanun la himamun ma al wafaa'i bi siddiqin fil uquwaati gor yalla yi kat seen fañu jëmeun li tax ñu atteindre objectif dafa am ay lu mën ta ñak lo xamne tay mom lañ doon te képp ko jaar seenu yoon te bëgg àgg fañ àgganit fukk yëf yooyu foog nga gànnaayoo ak moom fukk yëf yooyu nag mooy li ma wax léegi da caa bokk mooy la nécessité d'œuvrer en équipe mooy loo wólu-wólu sa xam-xam ak sa am-am ak sa man-man ak sa compétence ak sa expérience war laa jàpp ne yow dong war ngaa mën a di beddiku dem ak sa bopp déedéet boo ko defee doo dem foog nga seet ñi nga partagé bëgg-bëgg ak gëm-gëm ak pas-pas nga ànd ak ñoom di wutandoo li ngay am dog koo mën a am loolu la yàlla wax yonent bi moom la sëriñ Touba fee feeñalaat moo tax sëñ Mirina it kon lii mu réalise dafa ànd ak ay góor yàlla wala ay taalibe yoo xam ne dañoo laxasaayoon ànd ak moom jox ko seen bopp ànd ak moom di wut ak a xeex ba am lii kon buñ koy fàttaliku dëgg la ñun ñu askanoo ci moom war nañ koo fàttaliku ngir tibbe jom ci moom waye góor yalla yi and nak momit war nañoo baye xel góor yalla yi and nak serigne mbiri na ba mu réalisé muy taalibe yi itam fexé ba jom ja seeni ak seeni baye aman ak àndin wara a fet wi ñu ànde woon ak sëriñ mbiri na ñoom ñu and ko ak njabot serigne mbiri gi lolu mo waral cheikh al qadim jangal nu ne uqal bukaau ala saadaati nimwaati tabki aradi alay im ka waru gar la góor yalla yi fi jaar demel serigne sëriñ mbiri na ba jóge fi ñu di len fateliku fàttaliku ganag mu jàngal nu nan koy defee kaanu ibadan bi taatin li rabbihim da di leeralal ñi ngeen koy fàttaliku fañ jaaran yàlla ba am cër bin am ci ñoom ak wàccuwaay bi nga xam ne ku jaarut fañ jaar amoo ko donte si donte seen nawle nga ci wàllu askan ñu xam fañ jaaran ak yàlla ak lañ defal yàlla ba am cër ci moom waaye bul yam foofu na leen fàttali kuy bindeef yi nga xam ne am na fu ñu leen féete woon ba duñ leen fàtte ba mukk ba bañ leen di fekke waxtu wu nekk seeni jëmm ñi ngi ci seeni xol nekk seeni bët fan lañ féete woon doomu aadama yooyu ba tax ñu am wàcc wàcc ci moom loolu it fokk ngeen fàttali ko sëñ Tuubaa moo nu jàngal nañu bu ngeen di fàttali ku mel ni sëriñ miir na ñaar yooyu ngeen di fàttali ndax loolu mooy tax ñi koy fàttaliku mën caa jëm ay leçon ay leçon yoo xam ne ca lañ cay amee ay leçon yoo xam ne ca lañ cay amee Eh, eh, bindu yuñ ci jëlé yo xamné ne eh, ci lañ cey mëna a ko seen borom ko ci seen digënté ak seeni morom bi bindef mu melni ne kon loolu motax kon taxawal bis yu mel dafa am dafa nek ndigalul yalla nek ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nek ndigal khadim rasul waye ñu gise ci ay ndariñ yu bare bari parce que tay képp ku aju ci mirina ci côté nday wala ci côté baye te amuloo ngant tew nga képp ku mbokal askanu Tayba boo amul ngante teew nga wala am nga kum fi teewal képp kuy dëkkandoo wala ngay wëlëre tey te ànd nag sëriñ mbiri na tey ñi la fi wutu teew nañ wala am ñu ko tuñ fi teewal ñi nga xam ne mooy autorité temporelle yi nga xam ne temporelle ak spirituelle ñoo war di ànd parce que diine yi islam loolu la loolu moo ko wutale ak yeneen diine yi wabtaxi fi ma ataka allahu daaral axira wala tan sa nasibaka mina dunya diine la joo xam ne dafa war a associer temporelle ak kon fii eh, occasion la boo xam ne mooy boole ñaar yooyu ndax ki mo saytu aduna ki mo saytu lu jëm ci luy défar ëlëk ñom ñaar rek dañoo wara and collaborer li seen seen mission ci kaw suuf doga mëna soti a sotti kon lii occasion la bo xane bu ñëwé tay ndax yi ñu fi wax yépp tay ta alquran mom la jóg wabtaxi fi ma wala tan dunya si ahmad bamba ne wa wa ali himmataka fi umuri dunya wa akhirati tasbil ujuri na ngeen xamne yeen yéen yalla ci kaw suuf en tant que khalifam kon nak bu xaar ba ëllëg wala ngeen jël effort yëpp jëmee ko ëllëg fii awaa ngeen di àgg ëllëg dafa am lu ngeen soxla woo ndax waxuma doomu aadama yi sax waaye lu yàlla bind lu nekk tey bu amee soxla doomu aadama koy faj xar mi bëy wi fas wi ku ci am problème nga xiif wala nga mar wala nga feebar bëy wala fas wala xar ni yow da la faj doomu aadama rek moo lay moo wutal solution nature bi noonu kon nag yaay xalifa yàlla ci kaw suuf yow doomi aadama kon yaa war a féete ñëpp fañ mënta féete seen bopp kon nag rawatina yéen doomu aadama yi seen biir loolu nag yàlla wax ne fii ci àdduna war a yemale loolu ñu lim fay ci am ndox di courant ak lu jëm ci assainissement ak infrastructure yi doomu aadama ñàkk soxla loolu du ëllëg fii la te doomu aadama moom moo ko wut moo ci war a taxawoon noonu te ñu yàlla jox wàllu adduna euh, ci wàllu kii ñoom lu dénk loolu kilifay diine yàlla jox leen dénk leen taalibe yi dénk leen bindeef yi ñoom itam ñu war leen a taxaw pour seen ëllëg ñoom ñaar yooyu war a associé kon muy jataay boo xam ne occasion la boo xam ne day boole ñaari autorités yooyu nga xam ne ñoom la yàlla dénk àdduna ñu war ko kon mu am ay njariñ yu bari waaye muy accès mu nekk loo xam ne nag buñu accès rek fokk ñu war cee jële bind at bu jot njël fi bind yu baree baree bari waaye bind bi nga xam ne nag moom la ñuy jukki tey rek ci lu gaaw et <coughs> gannaaw boo xamee ne danañ cee ñëw ci mujj gi ci li monsieur le préfet ak ñi ko jiitu wax ci lii ñu jublu ci kanam ci lañ ci war a def ci ay taxawaay ak i ñaan mooy e, booloo taxawaayi booloo ak wàccuwaayam ci diine islaam ak ci ab société bu nar a dem muy ànd ndax bisub Serigne Mirina bii tey ak ni mu mel tey ànd njaboot gi ñoo ko mën a maye ànd nag dafa nekk loo xam ne dafa nekk lu war sunu borom subhaanahu bi mu nu dee dafa wax ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu bu ngeen bëggee lépp lu ngeen songu daaneel ko da ngeen boole seen bopp mu nekk benn te leen ànd la leen boole na yàlla yi kese tey rikk waay wala tafaraqu na ngeen moytandikoo teqalikoo ci seen i xalaat wala tafaraqoo na ngeen moytandikoo teqalikoo ci seeni i xol wala tafaraqoo na ngeen moytandikoo teqalikoo ci seen jëf moo xam la ngeen di wut luy defar seen ëllëg la moo xam la ngeen defal luy defal seen société la yéen ñi ko bokk di ko wut na ngeen boole seen bopp mu nekk benn ngeen ànd di tegandoo di nasandoo di teggandoo tey rikwaay wala tanason na ngeen moytandiku xëccoo wala fa taf solo wa tas abri ukum maanaam force bu teqalikoo faiblesse la faiblesse boo xam ne ña ko seq booloo nañ nekk seen benn force la kon mu ne na ngeen boole seen bopp te moytandiku lépp loo xam ne lu leen di mën a teqali ko teqalee loolu nag xëccoo ca la bokk xëccoo kenn ku nekk di xëcc kenn ku nekk di xeex sa moroom ci ay wax ak ci ay jëf loolu ku bëgg a dimbale diina doo ko def ku bëgg a dimbale saw askan du ko def alxuraan nag liban lu yi nga xam ne bari aana bokk gu tas wala kóllëre gu yàqu wala mbooloo mu àndan am alliance ba yàgg ñu dem nekk formé benn alliance boo xam ne moo leen boole ñu dem a dem a dem ba teqalikoo kenn ku nekk di xeex sa morom alxuraan dafa lim yoo xam ne mooy tax loola am la ci jiitu mooy ñaaw njort ak sukkandiku ci demale ak fekkale di tuumaal sa mbokkum jullit ak sa mbokku dëkkandoo ak di ko dëkkale néeg yum dëkkut alxuraan ne bare aan ku dugg sawara ëllëg te bakkaar bala dugg sawara mooy sukkandiku ci njortu di tuumaal sa mbokkum jullit wala nga di ko xas wala nga di ko dëkkale néegim dëkkul yaa ayyuha allazina amanu ijtanibu kasiran mina zanni inna ba'da zanni ismun na ngeen moytandiku njortu ak demale ak fekkale bare aana lu yàqu ci bokk te demale ak fekkale mook ko andi bare aana lu yàqu ci ànd loolu moo ko andi wala tajassasu na ngeen moytandiku di lux mbuutu muy liy xew léegi ci réseau sociaux yi tey di gëstu awra ak ay bi nit ak lo xam ci lu ñaaw ci nit lo meuna wax bo gesto boko amul sosal ko alquran neena na du ci koy gor du ci koy julli wala yaxtaba ba'dukum baada da ngeen seen nawla gor wan leen gannaaw ngeen di tek ci deram kaddu yu ñaaw yo xane bu teewon du ngeen ko wax neena lek nit moy loolu alquran loolu la jappé muy lek nit mom neena ni ngeen wara sibé sibe ahadukum an yahkula lahma axiihi maytan fakarihtumuhu kenn ku nekk ci yéen sib na comme bokkal ci benn dëkk wala benn quartier wala benn commune mu génn àdduna ba teg ci ay fan mu sulli ko di dagg ci yaram wa di lekk mu ne yéen ñëpp sib ngeen loolu mu ne nag noonu mu loolu ñaawee ne la sa nawle gor won la gannaaw ngay teg ci ab deram ay kaddu yu rafetut yu ñaawut ne noonu la ñaawe fi man mu ne kon na ngeen moytandiku loolu beneen ba ci des mu ne jamono nga sunu borom ne nit ñi képp ko xamné da nga bëgg sa and di rafet sa dëkk di dëgër di rafet sa couleur di ki na nga tandiku ñi sol seen dàll guddii wala yor yor ñew na la moytul diw ak diw ak diw ak diw nangam nangam nee bari ana lu yaq lo xamné ñoo ko ba tax na képp ko xamné dafa sol aw dàllam ñew wax la ci sa mbokk mo bokkal ci walu askan wala muy sa dëkkandoo wala muy sa loo xam ne soo ko jàppee seen bokk yàqu wala mu xajam wala seen kóllëre yàqu wala mu xajam wala seenu dëkk yàqu wala mu xajam nee na na nga ko vérifier yaay wala si na amoon in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanoo dee leen vérifier information yi ñu leen di jox te gaaw bañ a gaaw di réagir nee na képp koo xam ne lu ñu la wax nga gaaw fat fati gaaw réagir doo noppee di def loo loo rëcc wala ngay wax loo rëcc fa tabayanoo an tusiibu qawman bi jahaala fa tusbihu alaa maa fa'altum naadimiina mu ne naxam moos teg aaya bii kat ci ab ab ab saxaabi la wàcc ab saxaabi yu bu yàlla am yonente bi amoon confiance ci moom mu sukkandiku ci waxi ab yàqkat ba bëgg a loo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonente bi demoon na ba nara gëm loolu ca la yonente bi ne dee leen bàyyi xel ñooñu te léeg-léeg fañ ko foogewul lay amee mu ne test bi mooy lan faasix la wax parce que tëggu ci ab saay-saay dafa wax na ku mu mën a doon donte la ki la wax lii yéen a bokk tey fajar ci jàkka ji noppi def la waraat julleendoo takk tisbaar julleendoo takkusaan julleendoo timis julleendoo gee mu noppi naafila sa asilëf wëlbatiku ñëw sa kër déey la kaddu koo xam ne ci sa mbokk boo ko jàppee am loo ko jàppal wala sa dëkkandoo wala sa kii jàppe ko ne waxtu wam la waxee loola saay saay la yàqkat la donte yéen a bokk defandoo lii ndax moment ba mu waxee loola moom waxi yàqkat la waxi saay saay la waxee la ko jiitu kenn du ko contesté moment boobee mu waxee loo xam ne boo ko sukkandikoo yàq nee na foofa moom saay saay la fa doon mu ne kooka nag kon bul sukkandiku ci moom di gaaw a réagir yooyu yëpp di ay ay alxuraan suutul ujuraat im jox yonent bi jox na ko yoo xam ne buñ ko doon samoonte ak moom mu ne même boo de man sax ba gëstu ko ba gis ne deug la sax neena bul fayantoo lu ñaaw bum la wal ak bon wala tastabil asanatu wala sayyi'a idfa' bi lati ahsanu ahsan bo bañ baña melni ni kay la ngeen sekk ci ak bok sekk ci colère sekk ci dëkk bu amul dara lu may juk di jëm ci yow pexe yu ñaaw di ko wax wala buy jëf bo nee duma ko dàq lu ma wax ci lu bon dana ko wax lu ko raw def ci lu bon dana ko def ci lu bon da ngay yam ak mom te yalla nak ne bo beugé bax nak do war yam ak mom ndax kon dalay wal kon wala tastiwil asanatu wala sayya idfa billati ahsanu ne ko jegal nako dafa joom rek ma ngi ñaan yalla gindi ko te genné ko ca lola te musal ma ca man melokan ak jikko ju mel nona ma ngi ñaan man dal yalla na xir may wax ci lu bax ci bokku gi diko ci jëf diko ci yene diko def ci dekkando gi lol nak yalla na ma ci yalla musal neena bo defé lol bisay ñew ma wulil la ko bam noy nepp buy wax di wax lu nekk mu di ko def tontuwoo ko ci jëf tontuwoo ko ci wax ne may xëy wulil la ko mu nooy nepp fa mu jaaran di wax lu ban mu jaar fa di wax lu baax te ko sañ a mu ne bind la boo xam ne nag yombut itifa bilati alsan fa isa liski bay na ko bay na adawa kan waaye nag maa yu laqaha ila la siina sabaro bind la boo xam ne ku yaatuwul dënn amoo tolérance doo ko mën a wée waaye wamaa yulaqaaha ila zu azin azim waaye ku ngeen fi gis mu am cër ci yàlla am ko ci ay bindeefam te ne ay bokkam jiitu leen te duñ ko dabati bu mukk loolaa ko ko may di di muñ di jëlale ak a jégale kon nag nañuy muñ ak a jégale ak a jégale buñ bëggee ànd bi du rafet buñ bëggee bokk gi rafet tey itam mu amaat te lu am solo loo xam ne tey daanaa ko fi wax e kilifa yi santaane nañ ko lu am solo eh, dafa am laa xayra fii najwaa kasiirin ilaa man amara bi sadaqat aw marufin aw islaahin bayna naas alxuraan a ko wax nee na fu ngeen gis ñetti nit ñu toog di diisoo ay bokk lañ wala ay dëkkandoo lañ wala ay wëlal nee na lay lay da tax ñu toog di ko déey bu génnee ñetti yëf yi dara lu baax amu ca laa xayra fii kasiirin min najwaa ilaa man amara bi sadaqa mooy lan ñuy xool mbokk mu am nekk ci seen biir wala wëlëre wala dëkkandoo ju toll ci ay xat-xat soxla ku ko war a dimbale ñuy fexe nuñ defee ba dimbale ko ba génne ko ci xat-xat yi aw maarufin wala lu baax loo xam ne kat luñ war a waxtaane ci luñ war a def luy defar pénc mi di defar askan wi di defar bokk gi defar kóllëre gi aw islaahin bayna naasi wala diggante bu yàqu ay dëkkandoo wala ay bokk yoo xam ne duñ tuddanteeti buñ rombantee duñ nuyoo ñuy waxtane nu ñuy def ba défer seen digënté ba saytane soosu jaar seen digënté genn néna ñett yi fu ay bokk togué di wax bu genné ñett yi lañuy wax baaxul amun jari néna wërta ay jullit kon loolu muy bind yo xamné yo am solo yo xamné ñu wara bayyi ndax borom penc mi kat loolu la fi nekké won fu sa tok rek loolu la fi nekké won woni ni ci yalla delloo len ci yalla du seetaan dara lu yaq ci ak bokk wala lu yaq ci dëkk di taxawu jirim yi di taxawu ñi nga xam ne way néew ji doole yi ñi nga xam ne ñooy ay nawleem mu nawloo leen loolu moom lañ jànge ci nekk fii ba mu am cër bii mu am tey alhamdulilahi rabbil alamin asalaamu aleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp kilifa yi yi nga xaye kilifa yi bokk lañ kilifa yi àddina yi taalibe yi rakk yi ñëpp maa ngi di nuyu di leen jottali nuyoo suñu kilifa nun ñëpp di suñu wayjur sëriñ Ousmane Sill di sàkku itam nun ñëpp nu maase ci ñaanal ko jataay bii mu nekkal sëriñ Mirina yàlla may ko mu yàgg lool te may nu nu ànd kook moom te lépp lu mu it yàlla may nu nu am kàttan man koo defee na mu ko bëggee wax ji li fi jaral wax lépp ñu fi jiitu wax nañ ko kenn ku nekk la nga war a wax wax nga ko na nga ko war a waxee yàlla nu yàlla defoon ak dégg ak mën a topp kon dara des ci lu weesu jërëjëf rek jërëjëf mooy ak cant ci baatu wolof sëriñ Ousmane wax na ni mi ngi sant mboolem ko mu bokkal askanu ba mi ngi sant mboolem ko bokk ci askanu Mbakke waaye mi ngi gën sant nag ñi nga xam ne moo leen jaboote muy njabootu sëriñ mi dama Sàmba ndax bi ko yàlla tegee ci ëttëb sëriñ miir na mu jiite ko ba léegi si gis na ni ñi mu jaboote nangul nañ ko loo xam ne nii yaakaar na ni moom nungulu ko won sax ñako jitu won woon am xelam boko gisse non waye man dama defé ni lam lebel won rek lañ koy fayat lool rek moy li nek waye wax na ni mi ngi sant ñep mi ngi gëreem ñep mi ngi ñaanal ñep itam kenn ku nek la nga yaakar bay tax ngay e def la ngay e def def ci lu baax jëme ko ci mom yaakar joy yalla ko yalla ya def mu yaqeen yalla bu ci dara yaq yalla bu ci dara yaq sëriñ Ousmane wax na ni moom day amul soxla ci dara lu dul li yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa bëgg ko sëriñ Tuubaa bëgg ko sëriñ mi ne waajuram nekkante loolu rek mooy bëgg-bëggam loola nag xanaa da koy wax ngir wane yéene waaye noonu xam na ne li mu dund loolu rek la mën a bëgg kon yàlla na ko ci dimbale ba mu defee ko nam ko bëggee te nu ànd ko ak moom te dara bañ koo gàllankoor mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waxan na na ma nag ne naa wax nit ñi ne leen doomam di ab taalibeem naa ko jotale ak cant ci kanam mbooloo bépp muy Seex Sekk bi mënoon naa ko wax ba mënusee fa sama nekk waaye ndem dafa xam ne ma nag naa jël fii kàddoom kon fii laa koy waxee ñëpp déggandoom wax na ni sant na ko gërëm na ko mi ngi koy ñaanal waxtu bu nekk tam wax na ni sëriñ Abdou Seck bàyyi Cheikh Seck moo jàppan ci loxol Cheikh Seck dénk ko sëñ Ousmane ndénkaan nag kañ dénkaan bu manqué këñ ko dénk moom war naa mat ba aar ko te wax na ne Cheikh dimbali na ko ci kaaraange ko bu baax a baax kon mi koy sant mi ngi koy gërëm mi ngi koy ñaanal noonu nag ku sëñ Ousmane sant nu tàbbi ci biir cant ga ku mu gërëm nu tàbbi ci biir ngërëm la ku mu wan gannaaw nu wan la gannaaw loolu rek mooy li fi nekk jërë ngeen jëf yàlla yàlla may teewe déwén te kenn ku nekk nga yokk ci fànn yëpp te lépp luy gàllankoor saahir ak baatin yàlla musul na ci ci kàttan boppam gi barkeb Seexul Xadim man dama waxan fii ne maa fas yéene nekk jëwriñ yi kër sëriñ bi ne feeg maa ngi noyyi te du ma ci jóge mukk jëwriñ nag du jëwriñu magam du jëwriñu baayam ka may jëwriñu mooy kam bokkal bëgg-bëgg muy ab taalibe ne moom kon man maa ngi wax tey ci kàddu taalibe bu yaakaar sëñ Meeru bu mu mën a doon nag ndaw yi nga xayee ñoo dajaloo tudde seen bopp mbootaay gi nga xayee ne ñoo ànd di liggéeyal sëñ Meeru ci penc mi maa ngi leen di soññ di leen ñaanal yàlla musalin ci am ndox doon leen wërsëg ba lindu yéen ci penc bi sëñ Meeru ñu man ko ñooñu ñene ca bopp ba mooy bàyyi sëriñ Bey Balla Siis Maseer Bey Moodu Bey ak ñañ ko àndal maa ngi leen di digal ci ci ndigalul baay Ousmane na ngeen gën a boole seen bopp takku laxasaayu def wenn say fu ngeen mën a nekk ngeen nekk fa sëñ miir la su ngeen ko defee lépp lu ngeen yéene da ngeen koo defee ko na ngeen ko bëggee te ngeen bañ a ko di waxtaan tey bañ a réew jërë mbokk yi di leen leen jëlee woon Merina Syll mu doonoon màggal goo xam ne ñu ngi koy màggal sëriñ Merina te leen joxaatub daje beneen yoon te leen wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.